jërë ngeen jëf mbokki internet ci safoo di seetaan ak ci Actubuzz TV ginnaaw biñ leen nuyoo ñu daal di eh, dikk ak yéen ci seen rubrique bu bees bii di cey li ci réew mi ma ciy ànd ak ki nga xamante ni mooy abu ak suñu naataango bi di mëmoo eh, ñu daal di fas yéene waxtaanee benn mbir bu doywaar boo xamante ni ni daal di nay xew ci eh, biir réew mi muy benn xale bu góor bu daal di rek bett ki nga xamante ni mooy jabaram ak rakkam bu jigéen ci néegam mu bett leen leen ci anam bu doy waar ndax moom dafa ñëw rek fekk leen ñoom ñaar ñëpp ñu daal di def eh, yaramu neen maanaam tuunu ba pare mu daal di gis rakkam ju jigéen jooju daal di sëgg ci li nga xamante ni mooy awra ki nga xamante ni moo nekk jabaram mu nekk tamit mbir mu ko bett ba looloo waral moom bi mu leen gisee dafa daal di tiit ba yuuxu ndaxte moom bi eh, dafa yaakaaroon ni rek li nga xamante ni mooy rakkam jooju ak jabaram mësul njott loo xamante ni mel na noonu ci seen diggante moom sax daal nay xamle ne buñ ko envoyé woon vidéo ki nga xamante ni mooy jabaram ak rakkam du mës gëm lu ni mel parce que dafay jàpp rek ne euh, mbir moomu montage la waaye moo ci tegal boppam ay bëtam looloo tax tamit mu daal di yuuxu ndax dëkkandoo ya daal di ñëw ndaxte moom la mu expliqué rek mooy ne jamono yooyu noonu àndatul woon ak sagoom te bañoon naa def li nga xamante ni mooy kirim ndaxte boobu meroon na ba fu mer waaye bi mu yuuxoo ñëw ci la ko dëkkandoo yi daal di calmer bi mu dalee itam daal di nay fase ki nga xamante ni nii mooy jabaram ba pare daal di génn kër ga ndaxte moom la mu wax rek mooy ni mënatul dëkk ak ki nga xam ne mooy rakkam ju jigéen jooju ndaxte gis ko ak gis ay butitam la daal di yemale ci jamono ji ñu toll nii ginnaaw bi mu fasee jabar ji itam ak génn kër googu noonu mu daal di génn si la waajooju doon tamit daal di xam ne ki nga xamante ni nii mooy rakkam ju jigéen jooju ak jabar ji yàgg nañoo entretenir seen relation boobu nga xam ne daal di nañ ko doon doxal ca biir kër ga maanaam ñoom ñaar euh, ñu ngi commencé woon seen relation bien avant waa ji sax doon takk ki nga xamante ni nii mooy xale bu jigéen bi euh, cey li ci réew mi abu loolu la daal di xëyee ak ñun lan rek nga mën a xalaat ci li nga xamante ni nii euh, moo nekk li xew tey waaw jërë ngeen jëf bokku interview Actubuzz ah, nga tey li nga faa li ma laaj léegi léegi ne nekk na euh, xibaar bu doy waar bu naqaree dégg nag ci ah ci lool lool lool ci déggim mais li ma ci mën a wax mooy est-ce que ki nga xamante ne mooy ah, xale bu jigéen bi di jabaru waa ji est-ce que nekkut ak moom ak ki nga xamante ne mooy ah, rakam bu jigéen nekku ñoon ay xarit yu yàgg wala ñu fas yéene dund wala moom xale bu góor mu xamee ko ci nga xamante ne tey ci ci rakam bu jigéen ama tamit loolu mun na mun na nekk des fois des fois mun na mun am xarit bu jigéen ma ñëw xam ko ci yow ne la faa meema ko nga am na ko koy may mun na xëy na mu nekk kon sa coro comme xëy na kon jamono ji moom lu mel noonu ñu ngi koy dund ci réew mi nekk daal loo xamante daal waaw lu lu naqaree dégg daal ci dégg-dégg faa mm-hmm. mooy noonu Abu ñu daal di tamit jàll ci ki nga xamante ni mooy Momo moom it mu daal di joxe xalaatam rek ci lan la xalaat ci li nga xamante ni moom la ci li ci réew mi daal di xëyee waaw fa yaakaar naa ni tey waxtaan bi am na solo parce que je pense nii sax euh, day am solo des fois ñuy waxtaan si li nga xamante ni moom moo nekk si wàllum société bi ak euh, li ni mel parce que je pense sax lii lii man bi ma ko déggee xaw na doy waar lool lool lool parce que euh, waa ji sax laay laay wax bon mu ñëw xam nga en tant parce que tamit sa sa jabar. xam nga ak ak ni ni nga ko takkee yéen ñaan ngeen nekk xam nga tey jii yaakaar naa ni xam nga tey boo ñëwee ba dugg sa kër fekk kook mu fekk kook sa sa sa sa rakk xam day xaw a nekk lu doy waar trop trop trop trop trop mais naan ak dal rek si lu ma koy wax bu fekkee bon mu ngi may dégg man naan ak dal parce que tamit euh, lépp loo gis yàlla la ko xam nga mu ànd ak dal bon. parce que man bu doon maay moom su bi jour boobu bi ma gisee xam nga nit ñi sax jarul woon ñu siy nekk di si jot yooyu noonu ba muy yuuxu ba seen waa kër euh, euh, dëkkandoo yi di génn yooyu noonu xam nga mais tamit ak ku si nekk ak effet yi nim nim ni mu lay daal xaw na doy waar trop trop trop trop comme lu abu wax rek laay kii xëy na tamit noonu la demee parce que yaakaar naa ni comme que ñoom ñaar xamante woon nañ bu yàgg avant sëy bi damay ragal sax que est Euh, euh, jabar ji bon nekkul nekkul dafa ñëw accepter sëy bi pour pour mën a nekk ak ak ak waaw waaw mën a gën a jege ku jigéen ki xam nga parce que xaw na doy waar trop mais lu mën mënti am daal moom mooy euh, bon comme que fase na ko mais nañ delluwaat këram rek parce que gën a gën a a ñëw waxtaan rek euh, am parce que xëy na ne ndogal la rek boo xamante ne am na bon man daal lool loolu loolu laa gis ka kon comme man. Mhm. alors euh, Elmo ak ki nga xamante ni mooy Abou man bi ma leen bëgg euh, ci biir néegu say lay jëm bu fekkee am ngeen ci benn xalaat rek ngeen mën koo waxtaanee maanaam mooy ku jigéen ki dañ koo fekk ci ki li nga xamante ni mooy awra jabaru magam ñu daal di benn question rek bu ma si bëgg a posé mooy est-ce que tamit góor yi jotul ñu daal di xoolaat anam yi nga xamante ni ñu ngi koy sékkee ak seen jabar su fekkee lislaam daganal na ko ngir ñu daal di xoolaat eh, anam yi nga xam ne dinañ koy mën di mën a satisfaire seen ay jabar su ko defee amaana ku jigéen ki du mën a dem xooli ji li nga xamante ni mm, mooy feneen pour mën a am plaisir. waaw c'est que euh, Fane ci li léegi léegi dama la ci euh, mën a tontu xam nga dafa am euh, jigéen ñi dafa am façon jamono ji dund boo xamante ñu ngi koy dund ci àdduna bi mooy ci mbirum li nga xamante ne mooy dañ koy tuddee li nga xamante ne mooy ci mbirum lesbienne am na jigéen ñoo xamante que bu fekkee que dañuy dund loolu am ñoom duñ góor amul benn góor lu ci loo xamante ne ci côté plaisir wala ci côté leneen ak leneen yaa ngi comprendre ñooñu jigéen ñooñu ñoom seen morom jigéen rek dañ mën a yëg comme ni ngay déggee ci li mooy ci borom ñaari tur ngay diw euh, borom ñaari tur am na ñoo xamante ñoom dañuy am sax ay jabar mais dañuy doon li mooy borom ñaari tur ñoom benn sentiment dul seen moroomu góor yaa ngi comprendre loolu day mel day day dem ba mel ne que da ngay mel ne ko am feebaru xel si yaa may dégg lu ma la wax baax mais euh, des fois li nga wax di ko comme ci côté góor ñi waaw góor bu nekk xam nga nag euh, mbirum sëy néegu sëy xam nga dafa xaw a lëndëm mais euh, li ma la mën a wax mooy muus mu ne mooy xam ne mi tojee bopp dina xam waaw parce que góor gu yaa xam sànq. Mm. pour man mm. warul doon raison euh, raison boo xamante ni war na koo sekk keneen bu fekkee ni am nga jëkkër mm. euh, waroo am complexe war ngaa waxtaaneek moom li nga xamante ni foofu ngay yëgee sa bopp moo gën lay dugg ci lesbienne parce que loolu c'est banni par l'islam euh, l'islam nanguwu ko yoon nanguwu ko rafetul ci dégg rafetul ci gis alors mieux nga waxtaan ak ki nga xamante ni moom la la yàlla booleel te mu dagan mu xool nu mu la satisfaire moo gën lay dugg ci loolu waaw parce que damay faral di dégg des fois que ci yenn ustaas yi ñuy wax ne xaw ma seex sa awra jabar euh, araamut yaa ngi comprendre wala et cetera affaire yooyu ñu baal ma ci gi ñi nga xamante ni ñuy waaw sa nit ki daal sa jabar yaay xool li nga xamante ne moo koy jox plaisir wala moo koy jox bànneex mais toujours nañuy sëy ci li nga xamante ne mooy ci lu lislaam taxaw a d'accord am yoo xamante ni dafa xaw a ñaaw loolu nit war na ko mën a daw loolu daal laa am ci loo xamante ni li ma koy wax waaw bu fekkee tamit dafa dem ba yëg ne jëkkër dafa war a seex awraam tamit loolu tamit mën nañ ko composé waaw ñu waxtaanee ko mu defal ko li mu bëgg saaka muy dem ak di sekk ak rakkam bu jigéen wala rakku jëkkëru jabaram affaire yooyu daal waaw loolu laa ma ci wax waaw comme ni ngeen koy waxe waxee rek man lu may wax sax damay naan heureusement bu mu doonee jigéen parce que bu nekkoon góor sax dina gën a a doy waar trop trop trop trop trop parce que nag euh, neexu ci xol wala boog neexu ci gis nga gis li nga xamante ni parce que waa ji moom sax wax na ko booy xool si si yow li nga jot a wax que ni moom nee na bu fekkoon sax moom tegal nañ ko vidéo du ko gëm kon nekk na lu ko bett lool lool lool mais comme li ngeen lu may lu may euh, rejoindre ci sa ci sa question je pense que tamit euh, comme ñaar yi nga xamante ni ñooy nekk euh, di sëy en tant que ñoom ñaar war nañu mën a xool parce que man dama jàpp ni fekkee ci côté lesbienne surtout nga am dama jàpp ni xëy na kii pour man manque de plaisir laa ko mën a jàppee wala wala boog sa sa partenaire da la dul jox li nga bëgg carrément parce que tamit bu fekkee góor ak jigéen ak jigéen lu ñuy sekk comme si comme lesbienne nu muy sekkee lool sa jigéen sa jëkkër mën mën na ko def rafetal bu fekkee loolu nga yëgee sa bopp xam nga kon kon kon am na loo xamante ni xaw na doy waat trop trop trop si suuf quoi xam nga parce que tamit je pense que ni yaakaar naa ni euh, lii bu demee nag ba ba ba ba commencé dugg sëy ku si nekk war nga tiit sa bopp parce que nag euh, kii ñaar ñii mënoon nañoo dund ay ati ati at at at at kenn du ko xam parce que belle sœur am la xam nga nekk na loo xamante tey jii nii ku góor ki sax mënoon naa fekk sax waaw kenn du leen soupçonné mënoon naa mënoon naa fekk ñuy def naka sudul noonu fekk dañoo tëj seen buntu waaye ji mën naa fëgg ba sonn tamit mën nañoo profité sol seen yére bu duggee tamit du si comprendre dara parce que day naan jigéen ak jigéen la xam heureusement ba yàlla leeral affaire yi mu ñëw bett leen grand flan diri kenn du miim xam nga heureusement ba waaw mooy mais xaw soo moytuwul jigéen ay jigéen dañ leen fi faral di fiire waaw <laughs> parce que lii lii lii ah, faar kat xam ma dama ah lii man man fa lañ jëm parce que lii kenn doon wóolatu kenn ka mm-hmm. ah waaw parce que am jigéen ak jigéen moom tëj ne ràpp buntu nekk tëj ah, complicité bi ñu am mais ji nga mais ji nga l'islam l'islam dafa maandu mm-hmm. l'islam lépp lu muy xaw a interdit rek bu ñu ba ci biir a biir di nga gis di nga gis l'islam day xaw a interdit góor ñu mooy ñaari góor ñu majeur wala ñetti góor yu majeur bokk sax ay lal lislaam day xaw a bañ loolu yaa ngi comprendre day bañ loolu lislaam dafa dem ba bañ mooy jigéen ñu dem ba majeur di bokk yenn kii parce que lislaam dafa fiir parce que genre yu mel ni lañ ciy bañ amaana sax mun na bañ ñoom ñaar ku nekk mun nga bañ a doon lesbienne mun na bañ mais seytaane mun na leen dugg yaa ngi comprendre mun na leen dugg rek ci biir foo rek ñu foo di day arrivé ñu bari ah. foo foo foo rek ba nekk ca. Mm-hmm. te xam naa ne ah fa ko jàpp nag foofu nag foofu foofu kuñ fa téyeti foofu nag <laughs> li ñu <laughs> li li kii naan <laughs> delloo fa sa ko téye nag foofu dafa neex waaw foofu waaw nañ ma baal mais li may déggee neex na xam naa rek kon neex na. waaw fa man daal li ma si jaaxal daal mooy li mu doon jigéen ak jigéen rek moom daal moo nekk li nga xamante daal yëm na ma ci mais bu dee si jëkkër la moom wax dëgg yàlla dafa mel ne loolu euh, euh, l'islam tere ko dafa mel ne dara newu ci dina bàyyi euh, nga tàggatoo ak li nga xamante mooy mbokk internet mooy noonu abu ak euh, Elmo mu nekkoon cey li ci réew mi ñu amoon mbégte ak contentement tamit partagé ko ak yéen mbokk internet yi di leen jox rek rendez-vous ci suñu ay yeneen jotaay incha allah mais balaay loolu ñu leen di wax rek ngeen di abonné ci chaîne bi ba pare tamit euh, di bës li nga xam ne mooy cloche de notification yi ngir di mën a jot information yi en temps réel.